maaleykum nuyu naa leen siyaar naa leen dëkk bi fan yi neex na réew mi neex na barke Seydina Mohamed débat yaa ngi mel ni tulleeg màlle ci plateau yi waa APR ñu kenn daaw leen gis ci ministre ministre yeeg DC yi ñun day sunuy ministre ak sunuy DC ñoo gar daa jox yi ku bëgg ñëwal saagakat bu réew bi muy Barthélémy Dias booy bu réew boobu nga xam ne àddinaam yëpp saaga la dafa réew ba nëb mën a fen nag moom Barthélémy Dias fen ka dëgg ngoo ak ka a fen yéen xamu leen Barthélémy jaas bu toogee ci télé yi bu waxee da nga naan bu génnee dana mabba asamaan si day billaahi day fen rek cim nee na day débatté ak Sonko ah baatu xamoo sa morom xamoo sa morom ba tax na docteur Aliou mui moy microfinance ministre bi yor microfinance xam nga mom ab is bu tarixee la wàcce na bopam wacce na bopam ku oyof la neena bat kay ma may la sa sens ñoo ñu tok ci plateau yi débat mais doole ji du ben monsieur ministre xam-xam yu du ben monsieur ministre ki boy bu arrogant bu rew la dara xala wala kasiran fecci lembel tiaxan katch rek la xam docteur ali john ah dama la respecté lol ndax sa bëri xam-xam sa amuk be ak sa respecté Bassirou jamaa jaxar Faye president de la république ak cieur bi nga jox premier ministre président Ousmane Sonko motax nak malay alerte jeulal kenen malako keneen maa la ko ñaan Barthélémy Dias du massa tok ak yow wala bu ko defé dara xamut barke sayidina muhammad bus boko defé dina dina dina dina sant jonn baye bàyyi jaas jëm na xamna ding di ko jangal adina gi ci biram ndax mom jàngul dara foo fekk akop katch kat amul argument ta yow day jonne wax lu rafet nga xam ci réew mi jang ba jang joté motax ñu def la ministre microfinance kon nak bat la bi jass bu dee góor nga te am nga fit nee am nga xam-xamee yaay ba toog na da ngay leeral ci réew mi docteur Aldione devier na la woo la ministre la de xanaa doone doo toog ak moom bu dee am nga argument am nga xam-xam wiil docteur euh, Aliou Dione te maa ngi wax yëpp nag jot nañu xam ministre microfinance docteur Aliou Dione mii nit ku baax la ku bëri xam-xam ku dal la ku nangoo liggéey ku mën a liggéey la Barthélémy Dias mii nag bëgg koo yar a tax mu bëgg waaye xam na ne du naaw la la muy jaas du naawleem waaye nag da koo bëgg a yar bëgg koo xamal na ko njiit da am xam-xam kon nag baat la muy booy dugg di dee ni Amadou Ba bëggee billaahi Amadou Ba bu yëlee Sonko dana yàqu waaw saa misal seen it euh, ba ngay dawee euh, Thierno Alassane la xóom saa misal seen billaahi bu toogee saa misal seen saa misal seen dina ko lekk baat la muy jaas mii bis bu toogee docteur Aliou mii. xam nga tax ñaan ko docteur sonko bis bo jëlee débat bi yaak mom dana la lek du sa morom bolofam yu reuy yi nga gis xam-xam bu bari dafa fess del mo <laughs> docteur ali john contane nañ ci yow de waye nak barke Serigne Bamba Mbacke bu ma don yow na jël karen de mais ki na arrogance waye nak yow xam naa ne bis bu jàkkaarloo yow ci ñak xam la koy defé mais bis bu la gëstoo ba xam la lank lay def lank